ma jaara jumaay Seex Bamba du turam ci réewi wolof nekkul ci réewi arab ngir jaara tullaay Bamba du turam Bamba du turam ci réewi wolof nekkul ci réewi arab ngir jaara tullaay bamba duutul bamba duutul am bamba duutul am suñ falu sorori sorori Makka sorori Taybaya sorori Makka sorori nga xam ne si Porokhane rang bi moom moo jëm daaray Maam Jaara bi li nga xam ne mbooloo mi Serigne Touba rek moo waral lii lii nga xam ne moom ku ko gis ku nekk sa yaram war naa daw war nga am dooleeku fasteef na taalibe yi war nañu leen soññ di góor yàlla yi ñu delluwaat si daara yi am fasteef pasteef mooy lépp gi nga boo amul pasteef amoo dara sa xol dafa war a rafet nga am am pasteef ngeen war a ñëw ñu dem temps bi instant yi mu daal sa suba ba tey ñoo ngi jëm rang di ko jaayante ngir jëm Porokhane ah man ni rang bi laa jëm si maa bëgg a dem ziare ji su ma fa jógee daal dem teen ba million bi ay ndox laa si bëgg a sàkk su ma demee a ko bu jigéen. waaw ah, damaa siyaar sama jaara waaw. ah kontaan rek ah kontaan rek daal daan trop soxna jaara moom mooy lépp mooy moom rek la ñu am moom ak yow moom laa jóge. damaa siyaar soxna jaara. foo ci barabu soxna jaara rek bëgg koo siyaar. xol bu sedd rek. kaa soxla de nañ ca yàlla yeggale. xanaa sant rek te di leen ñaanal yàlla nañ ko fekkee na gën ci barke Soxna Jaara. waaw maanaam man man la Mouhamadou Mbaye surtout Cheikh Samba Diarra mbay ah man maay wax ak yéen si maam Diarra Tulaay di leen xamal gis ngeen mbooloo mi bëri gi mu bari li ko waral mooy liggéey maam Diarra bu bi mu liggéey fii Mamour Anta Sali Mbacke liggéey bi nag ba mu koy liggéey metti woon na lool waaye lii la gisoon muy ndam li tey nga xam ne moom la am bi nga xamante mi ngi nekk fii ci Porokhane di ànd Ba ak Samba Sira Diallo ñoom ñaar la boole denc Samba Sira Diallo si wet gi denc Gagnado Gagnado Ba si wet gi ñoom lañ boole si barab bi gis nga ko tey fu ne waaye jóge na fa di ba bitim réew riir wut si lépp ngeen bëgg a siyaara jaar tulee ci liggéeyam gu léegi mu liggéey waaye kenn du Soxna Anta Ndiaye li nga xamante ni moo ko labat ba indi ko si gan Maam Mor Anta Sali kon a ah, ñi muy sant suñ Muntaxa Mbàkke di ñaan mu yàgg fi te ndax ku ne xam na ne ayam gii de ayub defar la ayub yërmande la waa ah, ñi ngi ñaan nag ñu teew ay déwén déwén xam ne màggal gii ñu am ren mosuñu am màggal gu ni mel. waaw ah, maanaam at yi nga xamante ne nag maanaam jaam ñi ñu ngi koy yëkkati di ko ko jox ni wàllu koddaay yeeg. lépp lii wàllu bernde li wàllu ay ngëneel lii wàllu bànneex tey ñu ngi ko yëkkati di ko jox maam jaara te loolu yëpp li ko waral mooy tey gi mu tey woon sàkkat bi te ku maam Mor Anta Mbacké tey woon sàkkat bu doon tey bi leen bëgg naa teel ma sàkkat bi bu ngelaw nee për wàcc fa sàkkat wa daw waaye da ko tey ba maam Mor Anta Mbacké génn ni ko ana kii mu ne ko ma la soxna jaara mu ne ko yaa ngi téye sàkkat mu ne ko waa mu ne ko téye mi ngi ma téyel sàkkat bi de ci fayee koo xamante ne moo ñu ramu fii moo ñu ram fa ñu kon jërëjëf jërë ngeen jëf. waaw Sénégal ah sant nañ leen gërëm lañ leen parce que yéen lu xew yéen a ngi jóg di càmbar askan wi ci lu ñu nekk lii moom mooy rafet na lii mooy dëkk bi nga xamante ni mooy Sénégal ah wala li may wax nag moo di damay ñaan yàlla mi nga xamante ni boo ko ñaanee mu may la te boo sante mu dolli la ñu ngi ñaanal sëñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér di ñaanal sëñ Amdil Moustapha mu sëñ Modou Mbenda xalif général kulu Baay Faal mu yàgg ak lool te ànd ak wér ak ñun donga yëpp ñu ànd fii ànd ak wér yal nañu yàlla ga bis bi a bisu maam Jaara bi a day bis boo xamante ni bis bu mag parce que maam Jaara day génn jigéen goo xam ne génn jigéen la génn jigéen la goo xamante ne amul morom ci ñu njëkk ak ñu mujj ndax moom dafa liggéey sëñ Tuubaa moo tax sëñ Tuubaa fay ko bis kon liggéey sëñ Tuubaa rek moo wóor bis bi nag bisu cant la ah bisu cant la kon ñu ngi ñaan yàlla lépp lu fi waaye ñaan yàlla ko yàlla nangu ku fi andi ak yi waaw mbala gi nag dafay loo xamante ni dañ koy yàgg di def dañ koy yàgg di def ba amoon fi daara bàyyi faal goo xamante ni ñun ñooy bale dëkk bi ñu bëri nag wàcc nañ ci liggéey waa xëy na dañoo matal moo tax ñu wàcc ñun at bu ne bale yi dañ koy jënd fas yéene li maam jaara dañuy barkeelu ci dëkk bi di bale tàmbalee bale ci pencu maam Diarra bi ak jumaa ji ak wër kër ba Bassirou dem kër maam Diarra ak sëñ Mountakha dugg ci marché yi ak koñ yi def suñu kéemtulaay kàttan ñun lool mooy suñu liggéey ndax ñun ay Baay Faal lañu. bismillaahi rahmaani rahiim ñooy siyaare bu baax a baax di kontaan si bis suñu soxna Diarra bii bi ñaan yàgg ko teew ay déwénu déwén parce que luñ si ñaan suñu borom nanguñu ko ñun nag Baay Faal Cheikh Ibrahima. waaw di taal bépp sëriñ Basiru fii si Poroxaan waaw ñoo ngi ñaan sëñ Mountakha Mbacké yàgg fi lool sànn kër wér sëñ Mountakha Mbacké yal na ko yàgg woote ñu yàgg ko wuy dafa yàgg ñëw dekk wuy ba lépp si ñaan suñu borom nangoo ñu ko yàlla fay ñu ngeen ko fay si barke maam Jaara Buso yal nañu maam Daara nangul lépp barke sëñ Basiru sëñ Mountakha Mbacké yal na fi yàgg lool sa wér yal na fi yàgg lool sa wér dañu yàlla dolli dimbale si barke borom Touba barke maam Cheikh Fall yàlla na ko yàgg a taxawee. maa ngi dëkk Kaolack. waaw damaa màggal si kay. maa ngi suba ba léegi maa ngi si raa maa fexe ba yegg si jumaa ji. engrais am nañ suba ba léegi mënu fexe ba yegg jumaa suba ba léegi. suba ba léegi ah. waaw su ba beneen dem de waaye métti na lool ah ah métti waaye borom bés bi moo ko jaay quoi borom bés bi dafa sonnoon si bés bi quoi moo tax mu am lii. Tuubaa xutba fi baytil muqaddas na Tuubaa muqaddas am na na Tuuba Mam Samba Maryam mu wax kenn duutu ko wax am dun li man jaala doon way wax billaay Maryam la wax kenn duutu ko wax am dan billaay Mam Samba Maryam mu wax kenn duutu ko wax abdul liman jaara doon woy wax billaay mariama lam wax kenn duutu ko wax am dan billaay mooy maami aminatun la way wi la sët ya gëna niru maamum jaaratullaay aminata mi la way